waa APR yii est-ce que ragaluñ Karim Wade 2017 élection présidentielle yo Seydou Gueye yor kàddu APR ci tribune yéen kaay ne déedéet booy ragal candidat kay day fekk mu toj fenn laa la wax day fekk mu toj fenn benn ñaar booy ragal candidat day fekk kon mu gagné ay élection booy ragal candidat day fekk nag maanaam mu yor kon am jaar-jaaru politique goo xam ne loxi bët laa lay wax nii te ñëpp remarqué nañu ko waaw waaw waaye yow ab candidat woo xam ne yow say élection ya nga xam ne jot nga koo def da nga cee daanu 2009 da ngaa ñàkk élection ne foofu foofee nga voté benn ñaar élection présidentielle bu nga ñàkkati ko waaw loolee daal yaakaar naa ne amuñ dara luñ ca wax lu ñuy wax nag fi mu nekk ni lee mooy coowal Aïda Ndiongo gi direct info soxna Dieng Mbacke day ak Aïda Mbodj ah defal nañu Aïda Ndiongo defal de waaw waaw parce que ca assemblée nationale ko ni ki démb ah député soxna Dieng Mbacke mi lee moom honorable nee na kàddu yi nga xam ne kon moom la procureur de la république kon daal di yëkkati maanaam ab théâtre la quoi xam ne nag maanaam day gaañ ci jigéen daal lañ jël toroxal ko boole ko adduna ab mère de famille koo xam ni yaay la moom la ñu jël daal daal di koy wili pande jéebaane ko kon ak askan wi yëpp daal di dekkal nag lu jëm ci wàllu een mbañeel waaw ay da njong ci yéene kaay gi ne namu ma dara <laughs> eh laa ilaha illallah gaynde waalo gi ay da njong ci boppam laa lay wax nii nee na man namu ma dara waaw waaw jigéen ñi nga xam ni kon seeti woon nañ ko am na ca koo xam ne nee na man dama am mbetteel dama am mbetteel lool bi ma gisee ay da njong waaw waaw ma nga jekk lool kaso ba ca boppam laa ko jeex Aïda Ndiongue daal ñi nga xam ne ñoo ko seeti woon kon ca campénal googe xamal na leen ne ci direct info nelaw leen ba yandoor Aïda Ndiongue leen ko wax leen nelaw leen ba yandoor man daal sama xel mee ngi j'ai la conscience tranquille te nag gis nga suba waaw jant bi dina ma génn laa la wax lépp dana ma sa leer parce man aw dara luñ may toppee le populaire ne yorinu xabaar yi nag ci biir dossier wàllu yoon maître Sidiki Kaba waaw la mu bëgg daal a kaay mu nekk nii nee na dana bind nag assemblée national ngir ñu jël daal ay jumtukaay ngir procureur yi mën di communiquer waaw waaw procureur mën a wax daal waaw libération yéen a kaay ne dossier wa day yëngooti na ah, waaw parce que gis nga Serigne Mbackiou Faye Alaaji Mbackiou Faye mi le homme d'affaires nee na coffre fort 115 bi nga xam ne dañ na ay Aïda Ndiongo ko moom man mii maa ko moom man Mbackiou Faye maa ko moom eh, <laughs> yéen kaay gi ne dama ne dossier ba yëngooti na Mbakiou fay nee na coffre fort cent quinze biñ naan Adja Ndiongo ko moom moo ko moom waa section recherche nag gendarmerie day wan nañ ko kon ab contrat waaw ma ne gars yi ànd ak commandant Cheikh Sarr ci ay tànku déglu nag directeur CBAO di Abdelkrim Rahni ci tànku déglu ko nañ ne de gendarmerie ca boppam laa lay wax nii ni ki démb kon lañ doon déglu kii di Mbakiou Faye laas ne Adja Ndiongo tamit déglu nañ ko ni ki démb ci suba de un waaw ca brigade des affaires ma ne la camp pénal ko fekk déglu ko fukki minute rek la ko jot a déglu Adja Diaw Gueye journaliste yéene gi ne juróom-ñeenti avocat yi nga xam ni kon ñooy layal ay da njong moomee bu yeboo ñu jóg de bu yeboo ñu jóg daal di kon takku laa wax ni lee ci coowal banque yi ak offre fort maanaam ak daxar bi nga xam ni kon def nañ ko ca këram gee ca Anne Marinas waaw léegi nag procureur spécial di Alioune Ndao dugg na ca pecc ma i maa la ko wax na ca ndax procureur spécial goo gee moo sàkku ci takk der yi laa da ko déglu waaye bu ñu sukkandikoo na ci koñ doon jokkool waaw nee na daal loolee tribunal bi ñoom Aliou Ndao kon sañ nañu ko ah, waaw waaye nag nañu xam ne Aïda Ndiongue mësta yor kon alalu buur di alalu état bi même ba muy nekk sax sénatrice laas de man nag maa leen di yeggee tey gendarme yi barki déem boo njaay kon ba ñu demee kon ca kër Aïda Ndiongue gële ca Anne Marie Nass lan lañ fa jëlee juróom ñetti cachet ay cachet cachet yi waaw yi nga xam ni kon Aïda Ndiongue ko moom benn ñaar jëlee nañ fa tam ab leetar woo xam ne secrétaire général ministère urbanisme googe lañ ko bind waaw waaw gendarme yemuñ ca ndaxte ba ñuy dem kat yóbbaale nañ ay bagage yóbbaale nañ tamit ay photo yoo xam ne maanaam ca miir ba ca kër Aïda Ndiongo kon la ñu laal lay photo ya enquêteurs yi nga xam ne nag ñoo yoroon kon détracteur de métal yoo yee ma ne yóbbaale wuñu dara enquête yéene kaay nag tey jilee wax nañu kan mooy Aïda Ndiongo portrait la ñu defal waaw Aïda Ndiongo ban at la njëkk a am milliard 1993 la ilaha illallah yan nit yan góor ñoo defar kon kii di Aïda Ndiongo doore ko ci Jean Collin ba ci Abdoulaye Wade mi lee tribune yéene kaay ne maître Ousmane Seye day

suñu xele yi di ko yóbbu feneen yéene kaa ne waa Grand Yoff day jàpp nañ ne lii lépp complot dañuy comploté rek ci kaw Mimi Touré Mbaye Samb ne ñi nga xam ne nag ñooy comploté noo ne di manœuvrer waaw di jéem a yàq deru premier ministre bi daal nañu ko tàyyi nañ arrêté laa la wax parce dañuy rey seen kese waa APR ci vérité du jour song nañ sëñ Mbacke Ndiaye de waaw parce que APR jàpp nañ ne sëñ Mbacke Ndiaye mi la ginnaaw audience am ba ñett yoo jël ñaar ya ñoo koy financé le soleil yéen kay ne plan Sénégal émergent googe Ahmadou Ba ministre économie ak finance woo na daal partenaires yi technique ak financier ñi yëngu ci wàllum xaalis ñu nekk fañ nekk rek reste mobilisé enquête yéen kay nag bu dee bu dee Aïda Ndiongue la ñu wax mooy kan portrait le quotidien yéen kay tey jii Bougane Gueye Dany la ñu wax mooy kan portrait Bougane Gueye Dany waaw jaar jaaram Teranga FM te Ndar wal Fadjri RFM ba ñu ko affecté nan la mel tàng na wala tàngul liggéeykat la wala du liggéeykat moom Bougane Gueye loolee lépp ma nga ca quotidien yéene kaay yéene kaay ma jambal jaañ ga ñaar fukk lay jar kese tribune sport ne sixième journée ligue 1 bi day AS Pikine Casa tey la Casa day am na ñu leen mitti dee mais nag attention direct la Sen TV dem naa ca lamb jë tribune sport ne Gris 2 waaw wane na ne segg dëgg la quatre combats quatre victoires maa la ko wax de Gris 2 démb dama ne la moo daan booy remarque laa la wax Modou Lo Eumeu Sène nag yéene kaay ma jambal jaañ gi le quotidien nee na seen face à face bu mujj ni ki démb la dee ca 2S waaw waaw <laughs> cay Modou Lo Eumeu Sène kuy buy daan dama ne la samedi bii di ñëw ci heure bii dana fekk ñu xam ko lamb ja jeex tak revue de presse ba jeex na tak kon à lundi. cuuni transfert d'argent